lu toll si ñeenti ati kaso la ñu ko tëj ñaari lay tëdd doom ji di Massata Diack ñu tëj ko lu toll si juróomi ati kaso ñu amande leen lu toll ci cinq cent mille euros yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Lamine Diack ak Massata Diack ak nga xam ne ñoom la ñuy joxar bi baaraamu tuuma ci lu jëm ci mbirum ger gi nga xam ne nee nañu dafa am ci IAAF ci atum 2012 ci Jeux olympiques yi moo doon am ca Londres ñu tuumaal Lamine Diack daal di wax ne dafa bàyyi athlète russe yi maanaam ñu daal di doppeewu ginnaaw xaalis boo xam ne moom la ñu ko a kaay ñu xëy jàngee fa na Lamine Diack tëj nañ ko lu toll si ñeenti ati kaso ñaari lay tëdd waaye nag ñaari at yooyu sax du ko judd tëdd li ko waral mooy ay avocat am ñoo def appel Gabriel Dole moom mi nga xam ne mooy yoroon lépp lu jëm ci wàllum antidopage ci IAAF lu toll si ñaari ati kaso yum du tëdd la ko tëj Habib Cissé mi nga xam ne moo nekkoon seen avocat ñetti ati kaso lañ ko tëj waaye ñaari du ko tëdd benn at lay tëdd yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Lamine Diack ci ab résidence surveillée la ñu koy daal di denc maître Moussa Sarr mi nga xam ne mooy layal Diak nee na mbir mi kenn xamul lan lay niroo ndax seen àq ak seen yelleef ak seen wàllum droit kenn musu ko respecté Boubacar Seye mi nga xam ne moo jiite Horizon Sans la ñu xëy fekk ko ci réew mi quotidien nee na àtteb Lamine Diack bi bëri na ci loo xamante ni maanaam complot la bëgg ko toroxal rek lañ si daal di jublu yéen a kaay gi di exclusif ñu xëy fekk fa Karim Messi ñoom nag nee nañu jamono ji c'est fini julli tubaab danañu engagé xeex bi ngir Karim Wade ñibbisi si réewum Sénégal li quotidien mu ñu xamal ñu Karim Messi dafa mel ni dañu doon ne la waaye jamono ji yeewu nañu nee nañu Karim Wade dana nekk candidat ci élection présidentielle 2024 réew mi quotidien xëy ci lu soxal wàllu mbënd mi ci réewum Sénégal ak tuuma yi nga xam ne Ousmane Sonko gàlloon nañ ñi nga xam ne ñoo ko yor ne ak luubal ak wuruj dafa am ci ni nga xam ne moom la ñu yoree mbënd mi ci Sénégal xaalis bi nga xam ne moom lañ ci dugal ak labaj daan na say am ba mu yëkkatee kàddu yooyu nag Lansana Gagny Sakho mi nga xam ne moo jiite ONAS dafa tontu woon wax ne Ousmane Sonko su bëggee am lu ko leer ci ONAS ak ni nga xam ne moom la ñu yoree mi na ñëw ñu leeralal ko Ousmane Sonko Lansana Gagny Sakho mi nga xam ne moo jiite ONAS na ko Lansana ba mu ne ko naam mu ne ko damaa bëgg ñëw ONAS xool ana nan ngeen yoree li jëm ci wàllu mbënd mi xaalis bi nga xam ne dugal nañ ko si Lansana Gagny Sakho na ko Ousmane Sonko yaa ko tere neex maanaam ni ko suba ci ajuma ji ci suba gi Ousmane Sonko dina dem ONAS ngir ab séance de travail jëm ci wàllu mbënd mi ak ni ñu ko yoree 24 heures yéen kaay ñu xëy fekk fa Bassirou Diomaye Faye nee na Bougane Gueye Dany yéeg gi nga xam ne Ousmane Sonko ma ngi koy yéeg ci lu jëm ci wàllum politique loolee moo naqari Bougane Gueye Dany loolee la munta wanaaso yéen kaay gi di Dakar Times ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall nee neena sunu waxantee dëgg lu jëm ci wàllum lijjanti mbënn mi ci réewum Sénégal ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la askanu Sénégal di dund maanaam Macky Sall munu koo lijjanti yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xamal laan ñu lu soxal wàllum plan Orsec am na nag ay gox yoo xam ne moo gën a yitteel Macky salla fu ci mel ni Sokone Kaolack Ziguinchor Joal Thiès Saint-Louis ak Kër Massar yéen gi di Libération ñu xëy jànge fa njiitu réew mi di président Macky Sall wala sax ñu ne buur Fatick ak Fouta tey ji dana dem Kër Massar Sarr ngir nag ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllu mbënd mi gorom bi di Mansour Faye daan nay wax ne ñi nga xam ne lor nañ ci mbënn mi lu toll ci cent mille francs jàpp deux cent mille francs danañu leen ko jox évidence yéen kaay ñu xëy fekk fa Serigne Moudou Abi Mbacké di responsable politique APR dëkk Daaru Muxti daan na yàq lu mel ni xamee musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko daan nay wax ne Ousmane Sonko wóorul ci réew mi ndax mbooleem ku nekk ci réew mi nag Ousmane Sonko daan lay songo song na fi kilifa dini song na fi homme d'affaires yi song na fi sax citoyen lambda yi Serigne Modou Abi Mbacké ne Ousmane Sonko ay mbiram lu jara càmbar ndax ku wax mu daal lay song homme d'affaires yi sax bàyyiwule na yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy Cheikh wu yaatu ak Cheikh Bakhoum mi nga xam ne moo jiite agence de l'information de l'État daan nay wax projet yu rëy yi nga xam ne maanaam daan na koy naal ak li nga xam ne liggéey na ko ci réew mi maanaam nee na 45 départements yi agence de l'information de l'État def na fa ay jéego yu rëy wax na ci projet Smart na ci rôle ni agence de l'information de ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay point yoo xam ne def nañu fa wifi nee na mboolem loo xam ne place publique la ci Sénégal danañu fa fas yéene wifi boo xamante ni maanaam ñëpp danañu si mën a connecté wu ndax dañoo tolloo jamono joo xam ne maanaam internet munta ñàkk yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa promoteur bii di Pape Dialis la mu le nee na combat bi dox diggante Tapha Tine ak Boy Niang combat boobee dina am Mbaye Ñing mi nga xam ne mooy coach ba Tapha Tine nee na promoteur bi tey jii si alxames ji danañu andil xaalis bi stade yéen a kaay ñu fekk fa Jibi Niang mi nga xam ne mooy agent bu Edouard Mendy